Nabou Zaïs Ba ci biir émission bii di 100% people ñu am mbégte ak contentement comme ñu makoy koy say suné di len dalal seen bir city di VIP people ak VIP info point net ñew fas len ñëw jégleel tout ce qui est information people fait faits divers yi gëna a ci biir internet dañ koy daal di tàmbaleek actualité people ci net ci ban article la ñuy tàmbale muy article people bi di concerner ak actrice ak journaliste bi di Awa gay Awa gay nak mom metti dafa daldi di um, nationalité ñaari réew muy sénégalais ak gambien mom nak moom moo daal di wax gannaaw ba mu jàmmarloo weeg suñuy natango mu xam le nak lépp li nga xam mo tax mu daldi dugg fofé ci Marodi TV wante yemu ca nee séquence bi nga xam ne moo ko metti conséquence bi nga xam ne ci la gëna am lu ko metti bi mu ko tourner ba paré muy séquence bi nga xam ne ci la doon maase ki nga xam uh, mom modi Fred nee na loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yem waaye it moom it yemu ca na wax na li nga xam ne moo di waajuram bu jigéen génn àdduna bi mu génn àdduna ni mu ko def ni mu ko dundeek ak fi nga xam ne foofu la ko daal di yóbbu. buñ jógee ci loolu ba tey ci actualité people du net dañuy daal di dem nag génn réew mi dem doxantu ba ci diwaanu Mali Mali nag li fa xew doy na waar ba fa doy waax yem nag kii di chanteur bu mag boobee di Sidiki Diabaté moom la malheur gu métti gi waral nag oto moom la daal di ñàkk oto bi daal di tàq ba jeex tàq tàq tàq lu ko waral nag dafa chauffeem déet wala dañ ko taal intentionnellement en tout cas doy na waar ba fa doy waar yem image yaa ngi noonu ngeen di gis otoom daal laq na ba fu laq jeex desatul dara feer yeeg lépp mokk na ba ne rumbox doy na waar mu mel ni daal atum 2021 beeg 2020 bi neexul ci kookee di si Sidiki jabate gannaaw bi nga xamee ne jàppoon nañ ko fii ndax lan dóor gi mu mu dooroon copinam boobe di Mama Sita ñu tudduñ ko ci nag ba mu tuddoon ñeenti weer kaso ba mu génnee nag ci ay mala rekk lay dox ba ci otom bii daal di tax buñ jugee ci loolu ba tey ci actualité people dañuy daal di dem nag foofee ca diwaanu Congo Congo nag la fa xew jamono ji euh, sénégalais yi fa nekk euh, moom mooy daal di def buzz gannaaw bi ñu fa demee nag pour def suñu match amical boobee ak ñoom bi ñuy commencé match bi nag ba mi-temps euh, ki nga xam ne moom moo di Sadio maane sécurité congolais yépp dañoo regroupé wu ne ko nag foog ñu ñëw photo moom ñu am souvenir ak moom mu mel ni daal suñuy star planétaire bi du sénégalais yi rek ko bëgg waaye Afrique wërngal këpp ñëpp moom la ñuy daal di ba ci congolais yi nga xamné bañ ko gisé dañu and ak fierté daal di taxaw ak tenue photo ak moom pour am ak moom souvenir. ba tey ci actuality people du net lay daal di taxaw ak yi nga xamné moom di Boubacar Seye di njiital Horizon sans frontières jamono ji nga xamné japon nañ ko fi tëjoon ko fofé ci prison bu Cap Manuel ay avocat am di ci japp nak bañu mujj ko génné mu nekk presque ñaari wër hôpital. clinique dal di fa tëdd gannaaw ba mu génnee nag daal dina dem visite ji ñooñee nag di suñuy naataango di leeral TV ak leeral point net dem visite li nga xam ne moo di studio lu mu ci jublu nag ba léegi xamaguñu lu ñu mel en tout cas dinañ ci ñëwaat ba am ci yeneen leeral en tout cas lu ñu mën a wax mooy jamono ji tane na bu baax ba commencé di def ay visite buñ jógee ci loolu ba tey ci actualité people du net la ñuy di taxaw ngi ñu ñëw nag ci benn dame d'affaires ndax moom lañ ko nekk na koo xam ne fi mu jógee fi mu toll si yombul kooku nag moo de femme de ménage à propriétaire d'un hôtel de luxe en exemple aux jeunes exemple bi nag mënta romb exemple rawatina jeunes sénégalais yi nga xamné ñun ñoo fi nekk nak ak jigen yi nga xamné ñun la daldi porter le combat femme de ménage yu la woon rawatina nag nekkoon bon ci benn hôtel di raxas toilette ya ci biir lolu nak lay daan dooleem di gorgol di ñafe di gorgol du ñafe ba tay ji nak mu daldi construire hôtelu bop boppam ba nekk li nga xam ne moo di directrice hôtel mu mel ni rek y' a pas de sous te tamit mbo mbooloo mooy doole ndax tamit jom nag boo ko amee day fekk ñu jàppale la tax ci biir wax ji remercier na ñi nga xam ne ñoo di famille ñu ko soutenir waaye tamit ak ñi nga xam ne tey ñoo tax ba mu yegg fii tey mu mel ni daal référence mënta weesu kii ndax jot na xoolaat li nga xam ne nag moom moo di ay jëfam ñu daal di ko roy pour mën a tamit nekk ni moom buñ jugee ci loolu ba tey ci actualité fait divers mais ces femmes mariées qui ont des amants et ne le cachent presque pas ñoom nag jamono ji ñoom ñooy daal di def buzz di net lu ko waral dafa mel ni daal phénomène boobu ab tendance la ci même réew am déet en tout cas luñ ci mën a wax mooy kani mu ngi bëgg a bari waaye te mu ngi bëgg a jéggi dayoo ndax ñu ngi faral di gis boroom jëkkër yi di faranto di am ay fàtt jamono ji sax ñu ci bëri léegi làqatu nëbbatuñu ko mu nekk nag loo xam ne ñu bëri nag daal dinañu posé question lu pourquoi ba xam dafa am loo xam ne nag moo am wala lan la en tout cas doy na waar ba fa doy waar yem buñ jugee ci loolu ba tey ci actualité fait divers ñu ne fin de cavale pour ce que vous ignorez sur l'affaire de euh, Mbeng qui aurait remis de la drogue à Fatou Kiné Ndiaye Fatou Kiné Ndiaye nag gannaaw bañ ko jàppee woon foofee du wano Maroc à l'aéroport. Casablanca moom nag mu nekk étudiante foofee ca réew moomee nekk deuxième année à l'université dafa daal di jël benn muy GP di ko def di ci xar matt moom nag gannaaw ba mu defee loolu mu amoon benn client wam bu ko joxoon benn colis colis bi nag dorog moo ci amoon bi mu ko jëlee nag dem ba ci aéroport bi fi ñuy vérifier bagage am ñu daal di jël dorog boobee daal di ko jàpp biñ ko jàppee nag ki nga xam ne moo ko joxoon colis boobee di Maasuxa Mbeng moom it dafa dal di daw kenn gisu ko woon ba ñu mujjee jàpp ki Kiné Ndiaye Rose moomee pour nag dorog boobee lañ fekk ci moom en attendant ñu doon wër ki nga xam ne moo di Maasuxa Massoukha Meng Massoukha Meng nag alhamdulilah jot nañ ko jàpp jàpp nañ ko nag foofee ca diwaanu Maroc ba tey lañ ko jàppee waaye tamit biñ ko jàppee yemuñu ca nag continué nañ jàpp yeneen ñaari nit yoo xam ne ay complice am lañ mu mel ni nag ki nga xam ne moo waroon recevoir dorog boobee mu joxoon Fatou Kiné njaay fii di Sénégal moo it jàpp nañ ko ak keneen tamit koo xam ne complice la ba léegi ñu leen di fàttali rek kookee di Massoukha Meng mu ngi dëkk foofee ca diwaanu Thiès kaay ñu bëri nag ràññee nañ ko fa lolo jamono ji nag gannaaw ba ñu defee woon ay photom ci biir réseaux sociaux sociaux yi ah, ci la daal di dawoon làqatu ba malheureusement pour lui police daal dina ko teg loxo foofee ca Maroc. Ah, bu ñu jugee ci loolu ba tey ci actualité fait divers ñu ne dernière minute ça chauffe à Lucas ci affrontement entre étudiants et forces de l'ordre étudiants yi nag depuis ci suba ba léegi ñu ngi daal di jàmmarloo ko ñoo ñee di way takk deri depuis ce matin nag métti na foofee ca diwaan boobee nga xam ne moo jege UCAD ñoom ñëpp ñu ngi ci njàqare ndax jéggi dayoo lu ko waral nak len rek la étudiant yi dañoo daal di mer ba foto génnaat di manifester wu lu ko waral moy seeni natango yoyé étudiant yoyé ñu jàppoon ci manifestation yu mujj yi amoon ci réew mi mom nak ba légui lañuy daldi ñaxtu pour ñu libérer len bàyyi len ñu mëna ñëwaat continuer seeni étude jàngi ji lool nak mo waral li nga xamné ne di manifestation yu metti fofé ci ca université Cheikh Anta Diop voilà c'était votre émission 100 pour 100 people ñu am té contentement comme que vous koy waxee à Dylan ne di leen dalal seen biir VIP numéro de la semaine d'ici là portez-vous bien et restez scotchés dans vos sites internet VIP people et VIP info.net merci beaucoup à la prochaine bye. Diego López, que amor.